sama alaxira laa jiital sama àddina xam naa lu ma ci yàlla nam ma jox danaa ko am sabab lu bi rek la ma la ma sant waaye sabablu bi mënul tax ma am luñ ma bindalul woon gannaaw sant na ma lu bi nag damay sabab lu rek ngir loolu waaye xam naa ne yàlla mën a jox moo mën a xañ